tànneel bokkoo ci li may def waaye ndax sa gémmiñ na barke ndax yow mi ne aouzu billahi mina sheytaani rajim ndax man ngaa dàq iblis on sait jamais kon li gën a wóor mooy wax ko benn ma ne awwazani laahu mina sheytaani waxaadani manaasihal awtaar ba noppi ni iblisu wàll la ba li si waaye mu ngi daw nag te du dëpp di ñëwaat te wayees te kii bax de frère dabara mi ngi jàmbat ci ki ma doon mënumaa jege fenn ba lenn nam mënumaa yàqal dara nanuy seetantal loolu danoo am ku kenn amul malaayika yi di ko jariñoo yonent yi di ko jariñoo wàll yi di ko jariñoo adduna bépp di ko jariñoo mu mel ne xamuñu kii noonu ak mooy kat dégg naa yi xew tey ku nekk amee sa dëkk relativement bu dee ñi nga xam ne ñooy ñax dañuy yore seen dëkk constitution bi leen bu dee ñiy jàppaate yor seen dëkk seen pouvoir may leen kon kii war a def comme yaa ngi ak sa dëgg maa ngi sama dëgg nga fonk sa dëgg ma fonk sama dëgg te man ak yow suñuy dëgg saxul dëgërul kon lan la war a def waaw duñ seeti dëgg gi dëgër li dëggu yàlla gi li kat la wala day bi coow li coow li coow li dañoo wéeruwul rek ci alxaqul mubin ku def ci nag ma ne madda li alxaqul mubinul xaqa ubil xiyaamati la ma ara xaq lu nu daal noo ko teg suñu bopp effectivement yërmande ji dafa war a yokk ñu xoolee ci ki nga te colon yi jële woon ko fii fu ne ñu dugal ko fa lu ne ñu def ko te ko suulee ca kàmb ga mu am fa juróom-ñaari fan ci biir suuf ba tax mu bind ca bax baxa ne am mattani hatta daxaltul barzaqa fali yaxab an kulli suin barzaqa def ko li ko def lépp wan ko li ko wan lépp mu ñëw mi jéggal na ñépp kon ku fi nekk tey donte bi moo fi nekk ba tey te nga fésal li jox nga ko sa bopp jox nga sa bopp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yërmande jooju nga war ko caa ñaan ndax itam nag li moom makkee ko moom fi may wax itam nag bu ñu fi bàyyi Sénégal yëpp ni ñu toog ni la coppet ni la jiite liggéey dëgg la jàpp yàgg na fi jàppee jàpp nañ fi wàll lu dul bëgg ay réforme bëgg ñu delloo si suñuy xel ku na xam na ne Macky gaynde gu tëx gaynde gu tëx na ñaawe bu jigéen ba bu fekkente ni buruwee ni ñëw te geesuwul déglu bruit bi jigéen ba bi taxul moo ko war a kobas ba mu gerte wala doom yi nga xam ne ay waxambaane la ñu mën nañoo jàpp ci wër bu ndaw loolu yëpp ñii révolutionné ñëpp révolution tout court rek dañuy wax moom bu ñëwee rek amatul dara ndax ñun naan dañu naan yàlla nee na yonent bi nee na sëriñ Tuubaa nee na fédéré dama bëgg ñuy fàttali ko lu rafet te fàttali lu ñaaw te loolu man naa ko bëgg ku tedd ci suñu yaakaar yi tey ak ëllëg moom moom teg foofu moom joxañ foofu li kat moo tax bi ma waxtaan ak Ahmed ma ne ko Abdoulaye Wade dafa am lu ñu waxante woon bu yàgg booba Macky mooy premier ministre wax jay nelaw loolu képp laa yee donc képp laayee di ko jox titre honorifique ndax màgg la ñu war ko honoré wala xëy na fii loolu du la ñu léegi itam comme xale bii tax ñuy mars tey comme ña ñu ko jàppandooloon bàyyi nañ leen ñu ko bàyyi du leen wàññi dara ñoom du du leen jural benn faiblesse waaw ñoom ndax ñoom baaxoon nañ di wax naan. Euh, force toujours reste à la loi nan nan baax ma nañ ko wax yooyu ko defee parce que marché ji itam nag wax dëgg yàlla li ma wax léegi rek comme ku ci nekk da nga nekk ci sa dëgg daal moom bi may de sa dëgg dëgg gii nga xamante ni bi mooy dëgg yàlla gi kat du soppi ko nañ ci wëlbati ko ñun ñëpp ko defee rek jàmm ni ñooy réew mi nag lu fi a xew loo ko teg suñu bopp ndax wax dëgg yàlla danoo am koo xam ne daf daan signé wa salaamu ala bani tabaxal huda la paix et avec celui qui suit le droit. Donc Cheikh Ahmadou Bamba l'homme a deux signatures moom la ñu sa si su ko am ñaari signature ndax gis nga ko am feneen su ko am ñaari signature te gis teewul ci nit normal moom ñaari signature la islamu ala man ittabaha al huda moom la daan ëpp lu mu daan signé waaye wallahu ala ma naqulu wakiil yi tam su ne ngeen fekk seen ci xasaay si ñaari la wallahu ala ma naqulu wakiil mooy yàlla mi ngi compté ci ok doo ko am ci seen réew ba noppi nag di ay baj baje ay kii ci réew wax dëgg yàlla léegi nag mag yi na delloo si xelam fàttali ko lu ko yàlla defal ak parcours bi mu def course ñi mu doon courseur waaw bu xalaatee loolu rek xalaatal li ko yàlla defal rek bu ko defee parce que il est le chef suprême day wax gouvernement bi lii leen nangam ak nangam ak nangam ma loolu leer na nag wante pouvoir judiciaire dañoo am seen autonomie itam pouvoir législatif am seen autonomie waaye moom dafa am loo xamante ni bii constitution bi boo ko may ci wax ak ñëpp waaw bu ko defee nag ay jàppaate yooyu moom dëgg la ñi jàpp euh, kaso daal dafa am ci Sëriñ Tuubaa wax moom kaso nee na nan ko boole ci mbir yi di ko bàyyi waaw nee yàlla li muy fii bi mu ngi fi indee ci planète bii mënuñ ci génn kaso bu ñu ko ci génn ndax nee na ñaar ngay bari ay bàkkaar ba nga xam ni bàkkaar yi dara mënut a tax mu wàcce la lu dul ñu dugal la ci kaso bi peine la nga muñ peine ak lu mu bari bari lu mu yàgg-yàgg suñu borom xam ne muñ nga ko ñu jéggal wax ma lay kii ñu effacé bàkkaar wa illaa mu am martaba bu ñu la bëgg a jox ba kër ne foofa la ñu la koy joxe ba nga dem dugg ba nee na ñaar yi rek moo fi nekk ci kaso waaye jël bu bari amaa jëmi nag feer bi nga xamante ne bii moo la fa dugal ak ñi la fa dugal loolu moom leneen la waaye ku naa xam ne ni daal ku ne nekkoon ci grève ak ak kii ñun yëpp hmm, subvention yi gis ngeen ni mu duree ni mu yàggee waaye loolu France bu ko teg fii hmm, ñun ñu li ñu war a roy hmm, d' accord yor ñu république islamique naan ndax système bi fi des ba tey waaye Sénégal Arabie Saoudite la war a naam lool ndax ku tedd rafahani iqdaamu xayri rusul bi rafan bi ci waafaqtu kulla mursali moom alayhi salaatu wasalaam nii ba ñu koy suul ca Tamba ca Gabon yonent bi moo jiitu ca biir xamuñu daal ci maam dëgg yàlla nekkoon yii yëpp tubaab gerte ragal li ñuy defee ni tubaab yi ñooy góor yi ñun ñooy baadoole yi au contraire tubaab yi ñooy baadoole yi ñun ñooy góor yi. si bu ñu comprendre rek kat laa wax. langue bi du dara moom langue bi yëpp yem dégg nasaraan dégg beneen langue langue yëpp yem amul ci benn langue bu génn abajada nga wërsëg ba pare jafandar ak chat. langue boo mën a dégg foofu la dugg ci même kii leer te ku ko jàng jàng grammaire mën a laaj. du dëgg. ku tedd ki nag naar yi mën a daal di bëntil seeni arab. nu daal di nuru lisan wal kitaab ak mala xidmatil kitaab gën a dégg arab ñëpp. doon sa muy soog a doon sa escalier. dëgg la kooku kenn kenn du moom réew mi li fi xew mu naan. wàcce naa am ñu. na ma yaatu yéen man nañ. te fu nu fekk dëgg yàlla bi. nan ko xajal place. fàtte suñuy dëgg. parce que suñuy dëgg dafa relatif. quotidien la. li kat la moo tax ma wax Abdou Bachir Ahmed mii moo ñëwee annonce pas l'élection bi moom pas l'élection du siècle annonce la rek bu ko tendre la main ak le moom ni ngeen ko waxee rek avant may ñëw doon nañ ma wax itam ki nga xamante ne bii dafa doon ko xam nga génération bu nekk faaw mu loolu la ñu dara waaw gis koy nangu gis mm. est ce que langue dans la langue est ce que wéy rek am na non. defee ni ñuy yaatal yërmande ji Macky yaatal yërmande ji man nag damaa jóg pour ñoom rassembler leen fédérer leen si bu ñu ko nangoo. yii ñuy def ñi ñuy jaar yi ñu naan dama bëgg a jiite réew mi ñu naan dama bëgg a jiite la yooyu yëpp dafa am loo xam ne moo ko war a jiitu. ba xam ni Sénégal ku tedd ci ba muy soog a jóg daf ne xadd enqanil yow ma xubbul ahli wal watan man daal ci maa li sëgal anwaari wal fitan li ma gàllankoor mooy bëgg sama réew. ak sama ñooñu réew bi egg bu ci borom leer yi leer yi ma bëgg a yegg foofu la tàmbalee kii koy jàngale na mi ngi bëggee sëre waaye jiitim réew jiitim réew li gën a war mooy fexe ba mën a jiite sa famille d'abord bu dee ah, mën a jiite sa famille booy jiite sa famille nan ngay mën a nekk chef de ñu respecté waaw tel ki ma koy jàngal da ngay jël yërmande ji def ko basal def ko tànn ba noppi ba noppi nag tàmbalee ci intention bonne intention bonne parole bonne action tàmbali ci sa famille say wéy sa soxna sa doom say jabar sa te doo xëccoo dara lu la waaye gën nga bàyyi ko ku def loo xamante ne bi dafa ñaaw ci yow ne xaj na forme dee ñaaw waaye forme baax la ku tedd ñu nekk fii nga maara rek ni noo ci nekk kuy jóg loolu la man nag fi tol toll nii moom ne woon naa leen ma ci genn bu lan laay tax doomu aadama dëgg di stressé mbaa loolu ko tedd ki musal na ci waa lii tax doomu aadama bi di mer te loolu ko tedd ki musal na ci yooyu dama koy yéene ñëpp moom laa yéene ñëpp loolu tax mu xëy rek ñu bàyyi naa ceeb bàyyi yàpp xar bàyyi yàqu na bàyyi jën bàyyi ginnaaw ku ma déggoon nga def koy man ma respecté la ku ma déggoon nga def loolu tey dund ma respecté Ahmed euh, li ñu lay coordonnateur en tant que administrateur say collaborateur di ñaan peut-être kii moom mi nga xam ne xam na li nu tax a njariñ moo tax ñuy wax bi am njariñ nag Serigne Touba ko yor xam-xam bi am njariñ Serigne Touba ko yor waaw tey base bi mooy saytu ak moytu li jara saytu nga koy saytu li jara moytu nga koy moytu képp la kat salaamaaleykum